di nuyu jotaay bi ci turu way jur yi nu yónni kaddu gi mu ngi jóge ci sunu baay mouhamadul amin ابن سيدنا أبا بكر الله ابnu seydina imaam illaahi mahdi alayhi salaatu wasalaam ci ndigalam bi ñuy jokkook moom biig ci téléphone ginnaaw bi ñu amee ndigalam moom mi nga xamee ne tey mooy porte parole diine ji parce que loolu mooy li yàlla dogal ci moom ñu koy ñaanal yàlla aafiya ak tawféex ñu ko ñaanal yàlla jàmm ko ñaanal yàlla gudd fan ak wér ak mbooleem ay magam ak ay rakkaam ci dogalu bi yàlla kaddu ga it bawoo ca xalifa bi yaa rasulullahi sayidina bay abdullahi ayyadahullahu wa nasara yàlla na nu sama borom ba dimbali ci jëmmam nu ànd ak moom di ko gunge mu gunge ci ndimbalal yàlla barkeeb maamam ak barkeey baayam ak barke magam di sant yàlla ci xilaafaam di ci ànd ak mbégte te di ko ñaanal yàlla na ko yàlla wàcce moroogalaat ci njaboot gi yépp lu ahlu bayti rasuul andil nañ leen nuyoo sang bu tedd ànd ak waa nuurul mahdi bi ñuy ñëw ñoom ñi nga xamee ne ñoom la yàlla teg bés bu màgg bi ci seen loxo di leen ñaanal yàlla di am mbégte di ko feeñal mbégte gi jóge ci xalifa bi wàcc ci ak njabootam baatu suma baay Mouhamadul Amin mu ngi wax waa Nurul Mahdi jërë jëf mu ngi leen di ñaanal yàlla Anda ak sayidina Seydina gep ali alayhi salaam ay magam ak rakam di fedele ay ñaan jëm ci yeen mo koy sa sama nopp di xamle ne njabot gi yëpp nag njabootuk sayidina Limaamu alayhi salam gep ak diine jep ak bankhas yi ngank diine jep ñu ngi wax jef wa Nuurul Mahdi ndax kat seen taxaway yàlla dogal na ñëpp teg nañ ci bët rawatina buumi jokkookaay yi nga xamee ne tey moo ŋànk àdduna te ñun ñëpp ñu xam ne loolu ñuy wax jotal kàddu walla joxale ay kàddu nasaraan bi li daldi koy lim ci baatu information bi may wax léegi rek ci ubbeeku xutba bu tedd bi tukkee ci ñu sang bu tedd ba alayhi salaatu ndax damay bëgg a dikk ci waxtaane ndax dafa mel ni moom mooy wax loolu laay jàpp ba mun a allazi xalaxal xalq information mu nga tàmbalee sunu boroom foofu la tàmbalee ndax bi mu nammee dafa jotal kàddu إنما عمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون بي يالا نامي ميرم دافا جيف انفورماسيون وايي بوبو تي لير لاكو ديفه وايي بيمو نامي نك جيفاندوكو كادوم غيناو بام ووي سوبيمبا با ديوك موم تا اسرا والمخراج بو ديمي موم القران دي نتن قاب قوسين عبدنا فاوها الى عبده ما اوها سوب بي جيغي كو نينا جيغي ناكو لول لو راو سخ لولا نيي واخ نينا بروم بي واخنا اك سوبيم بي سوبيم بي ديلوكو كون فوفا لا مبيري تامبالي موتاخ ماني جومتوكاي جوكالاي واخ جي yéen de bi ngeen ko téye ak léegi bi sang bi naan ajibu daaya laa yaa maxsharal insi wal jinni inni rasulilaa ilaykum baat boobu damay wax ne ku ko dégg da war a taxaw ndax alxuraan ay wax te alxuraan mooy yàlla maa farat naa fi kitaab min bu yàlla fàtte woon baa mu ñàkk wax ci daxwa bii ci sawu jant ma xam ne kon kitaab bi matul te kitaab bi dafa mat ba muy wax weñ ak jottali amu fi woon waaye xamaloon nañu ne incha allah ndéem soob na ma borom bi ma yónni dina jotal sama kàddu ba fa àdduna yam te incha allah ba soobee ma borom ca waxin li ba fii ci àdduna fi lay layu jaam yi yey leen ci àdduna door a jiital sama kuréel nag ñu jëm àllaaxira kon nanu bàyyi xel ne mbir yi fii lay xewe bala noo dem am na ñu koy fekkee am na ñu ko dul fekke ñu ngi ñaan yàlla keroog bu mbir mi di di di feddale ko yàlla na ñu fi fekk ndax nag loola mooy nañu xam ne am na luy ñëw kon xibaar nañu am na luy ñëw yàlla nañ ko fekke ñi ko fekkewul wulit nekk barzaq ñoo ngi ne jàkk ci ñun ci coobari sans borom mi ubbi kiiraay yi keroog ñuy janoog ñun ñun duñ leen gis waaye ñoom ñu ngi ñuy gis ñu ngi ànd ak ñun ci ngëneel googule kon ñuy sant yàlla ci kaddu ngërëm googu mu wax jëmale ko ci Nuuru Mahdi ngeen xam ne ñu leen koy seedeel ñun ñu ko yónni yónni sax dañ ci am mbégte lool ndax xam Nuuru Mahdi taxawaayam ak xereñuk taxawaayam waaye it lii nga xamee ne mooy ay xalaat yu nu jëfandikoo di ci dox suba ak ngoon ngir galan fu ñu yóbbu daxwa bi ca kanam waaye nuñ ko woyofale ci jumtukaayu àdduna yi nu am ba fépp fu nu war a mën a taxaw nu man nu taxaw fa taxawaay ba nga xamee ne mooy taxawaay bu mucc ayib ndax nag lislaam amul dara lu beggan léegi rek bi ñuy tàmbali ci liggéeyu max di ñaari soxna ñëw nañ fi di ma nuyu te booy seet seenu pas-pas ñu ngi bokk ci waa jàngu bi te ñu ñëw ci réew moo xamee ne walla continent boo xamee ne muy gore loolu la ëmb may wax ne daanaa dégg sama baay mu naan alaay ah, sa maam daana wax ne mbaax bu sàngul bon boobu mbaax néew na mbon bari te baaxay yàlla baaxay sang bi sallallahu alayhi wa lii na jël na ay ay kam mantoom lalal ko ña nga xam ne ñooy yahudiya recevoir leen ci kaw mantoom ñu toog ca jël na jàkkaam jox leen ne leen booba ñu ngi bëgg euh, dem seen synagogue ba wax seeni mbir mu yabal leen ci jàkkaam ñu dem fa démb awalin muhammad ibn abdillah def na loolu bu ñuy fàttaliku it ñi ñu njëkk a jaaxal ci lislaam sonal leen ba ñu demee ca najis ba nijaayis ca éthiopie defe naa moo leen dalal dalal googa nag nañ ko bàyyi xel moo tax bu ñuy dox ci àdduna ba waa jàngu bi ñu ñëw ñu dalal leen nga bëgg caa xalaat da ngay delluwaat nga jàngi boo jàngee taarixu islaam di nga xam ne sunu boroom moo jaboote ñëpp yàllaa jaboote mbooleem ku gëm ak ku weddi yàllaa la jaboote yàllaa la bind kon ñu ngi teeru mbooleem bindee fi yàlla yi di sant nag waa Nuuru di ci dimbali googu ñuy dimbali ba mën a boole ñaari njaboot yooyu ñuy toog ak ñoom bu ñu xewlee ñun ñu dem ñoom bu ñu xewlee ñu ñu dem ca imaam ñu ngi lay jox yóbbante ginnaaw bi ñu jógee ci Nuru Mahdi sunu baay Mouhamadul Amin mu may fàttali ci téléphone ne ma imaam Hamza ñu ngi koy ñaanal yàlla yërmande yàlla dolli ku ci moom ak njéggalam yàlla day yërëm jaamam loolu lañu soxla yàlla na ko yàlla yërëm te jéggal ndax léeg-léeg nga dégg naan ku naan yàlla na ko yàlla fay ma ne ah wóorul de li tax ma ne wóorul damaa xayma diggante bi nga ganee àdduna ak bi ngay génn àdduna bi nga fi doonee tuut tànk ba bi nga laata xàmmee tàmbalee jaamu yàlla mu tegu ci ak sell nangul nañ la wala nanguluñu la dara wóorlu ci ndax kaye ba ñuy marke jëf yu yiw yi yàlla nangu bët tegoogu fa te yaa ngi génn àdduna di sàkku ak pay waaye yow bu la fayee baa doon dóol moo tax ma naan buñu sakku payu yalla nañu sakku yermandem ak njëgalam ndax buur bi ñuy jëm diko diko wuy ji té bu bes ba joté ñu laxas la nga dem sakul yermandem ak njëgalam ndax li nga liggéey xamoo ndax man nga liggéey ba ba naw ko sunu borom xarab ko sanni la ko ndax amna lu ci dugg lo xamé né soxlaaw ko mo waral ku xareñ ku xareñ nonu. sang bi daf ñu ko teel jangal sayidina imam ibrahim mahdi alayhi salam kon lay imaam loolu la sang bi waxoon ne bu ma ñëwee ma jotal la kàddoom teg sa loxo na nga xam ne sunu ñaan ci sa jur ñu ngi koy feddali saa su ne waaye it di jël kóllëre googu di ko yeesal ci sa loxo yu tedd yi ndax nag daf ma wax ci téléphone ne ma yaram ak tegginam ak fi mu ma teg ak worma yi mu ñuy jox buñ fa egsee ñun ñëpp ci teg suñu bët léegi bi ma ñëwee ci fële ca embarcadère laa ko gis mu ñëw ma ne ah, xoolal lii te kat dafa am fu mu jëmoon waaye comme bis bi dafa xat te teelu ñoo jot xibaar yi mu dagg fa mu doon dem ne daal du ma nangoo di dem fa ma jëm te mënuma faa ñàkk jëm dinaa fa yable waaye dinaa waññiku ndax kat ñii di ñëw tollu nañu ci man tolluwaay boo xamee ne ak dëkk bali ma ne mënumaa dem di leen bàyyi ginnaaw mu ñëw teeruñu ci biir calu bi la ñuy waxtaan mu xamal ma li mu wax léegi ci daayira bi bés ba ñu jàppoon ngant am ci moom mu ne moom it mu Mamadou Lamine ne delloo naa bési ba ker ngantam di dañ recevoir leen mook daayira bi jox leen turu ahlulaay tey daayira baa ngi ni toog kon bu ñu daayira bi teeroo seen taxawaay bu rafet bii bu jekk bii sama bàyyi Mamadou Lamine mu ngi leen di nuyu waaye jël seen yow di ko teg ci loxo imaam di leen xamal nag ne kóllëre la sunu bunt ci barab bu tedd bii jëmm ji la cheikh bi nanga xam ne Nuurul Mahdi day yàlla def na ci ñoom ñuy ay intellectuel te bu ñu jógalaatee ba yàlla dimbalu ci mbas mi ba lépp tëdd bu déwénee ak jàmm ñu ngi ñaan yàlla lépp mat waaye balaa balaa demati ca réunion ñooy bu ñu koy tàmbali di nga ñëw di teewe ak ñoom lu ñuy nos nga fekke lu ñuy nocc nga fekke bu bés bi jotee it yow yaay ñëw fii yaa ko yëgal dëkk bi ñoom dootuñu dem daayira bi dañuy ànd ak yow topp sa ginnaaw ak jibi nga seet dëkk bi képp ku fi yewwoo tey mbindaafoon tey nit demal ci moom moo xam mu bokk ci daara ji moo xam mu bokk ci jàngu bi dañ ko yëg kilifay jàngu bi ñoo xam ñu nefi ñu ñàkk fi nañ leen ko yëgal mairie ba ngay jubali ndax représentant baa ngi toog ñu koy ñuy jaarale nuyoo ma di ko teg ci sa loxo bi ma bàyyi waxee loolu ba pare nag dafa ma xamal ne ma maire bi moom ku ne xam na digganteem ak Pape Momadou Lamine muy boroomi taxawaay muy koo xamee nit ràññeeku na ci Sénégal ci la muy yëngu ginnaaw maire gi am na ndomba tànk yu mu takk te ñu ngi dégg sax ne am na lu muy wut di ko laaj. di jité kurel bobu ñu naan wa kaf sunu borom bi nga xamé ne moy jital jamam te moy fal kuko sop qul illahuma malika mulk tuxti mulka man tasha wa tanziu al mulka mimman tasha wa tuidu man tasha wa tuzilu man tasha bi yadika al khair yàlla néna ci ci loxom la ne moko té kon ñu ngi ñaan bur bobu nga xamé ne dombe na jam diko ñaan mu koy delo yàlla dafa jombale bopam jam ñaan ko mu koy delu wa iza sala an ibadi ani fa ayni qarib neena xamal leen ne bu may ñaan may exi innama tu àdduna saadix nag ñun ñaan nañ ko maître Augustin yàlla nako yàlla yëkki ci maqaama mu kayo momu tek ko fa yàlla nay palugu yàlla te buñu fi joge tay ñuy ñaan sunu borom ci nangu gi la gi dëkk bi lon ki tax ñu diko soow ci bëssam bu tedd ba ak koom ba nga xamé né moy fét ga moy la lu neex la ndax ñew bi dafa metti woon kon ñu ngi comme ñun euh, dellu bi la magal neexit bobu ak teranga joju yalna leri sanga bobu tungo maître augustin ba tek ko ca kanamu loola nga xamee ne moom lañ naan kaf wa ma bi aziz yàlla na ko yàlla defal ginnaaw buñ jógee ci meer nag di nuyu dëkk bi sant yàlla sunu borom bi ñuy womat ba ñëw ndax su ko sooboon kat lii ñu war di ñëw mu suuxal ko ci kattanam ak dooleem nga gëm ko ngay doomi yonent mu suuxal ko nga génn àdduna muy muy coobareem di kattanam te kenn du ko dab waye kon suñu baye ñu ñu jall ñu koy sant sant gogu nak moy di ko xamal ne mom dong la moom borom tay ñaan wat talal ko suñu loxo di dagan ñu wat ci te fek aduna ngi am li jàllali nit ñi yaay lay jall ci jàmm di ñew ci jàmm di delu ci jàmm leeri sang bi ko na fiy leer ga dara bañ fee am ci luy naqari incha allah ñu ngi koy ñaanal ñu ngi koy ñaan sunu boroom delluwaat nag di gàttal tuuti rek ci njàngaley sang bi defe naa lu mu gàtt-gàtt donte lay ñaari baat la damay faral di waxtaan ak sama jarbaat seydina imaam illaahi mahdi alayhi salaatu wasalaam suraat bii ma jàng rek di suuratul jumaa la ma yalxuxu bi damay faral di wax ne dafay doy rek ci baat baat yu ndaw ngay war a mën a xam li xew waaye duñ ca yaatu ndax moom woote na wàcc na te jotal na la mu ñu andil nag loolu mooy programme bi tax àdduna doon xaar imaamin mahdi ak nuzul Isa ibnu Maryam fii axiri zaman programme bi ñu andil mooy sunu dund nag ci àdduna li ñu wax ne àdduna lëj na ci tooñ ak ger ak jëfandikoo loo xamee ne sellul ci jaamu yàlla yi ñuy fàttali rek ne jamono bi sang bi di woote booba defe naa ne sax solu solu gu gu gu yiw làq sa yaram jafe woon na sunu bàyyi Sidina Abdoulaye daanuñu ko fàttali naan da nga daan gis soxna su yor gën a tuxu daal di def roof roppi maanaam ngemb di dox di dem boobu looloo fi am kon civilisation am na fu mu toll woon bi te nag booba lan moo fi am jaamu ay xërëm ak boyal sa bopp mhm. mu dellu si nag war a delloo si na mu ko defoon ca penku delloo si nit fi nga xamee ne fa la ko yàlla teg mi wala xat karam naa bani aadama fa ko sono borom teg mooy ba mu demee bu ngeen di fàttaliku ba mu nekkee mag lan la fa fekkoon beew goo xamee ne yéemi na te doyoon na waar beew ga demoon na ba nit ak moroomam di jënd moroomam di ko jaay xanaa ak njaama nga woon penku buñ koy fàttaliku nii mu doone tey fii ñu naan maison des esclaves mën nañoo wax ne maison des esclaves amoon na penku amoon na makkatal mukarram ca woote Muhammad ibni Abdillahi mu dog buum ak njaam ga daal ni la leen ñun ñëpp ñoo yam ci yàlla inna akramakum inda kenn gënul kenn ki gën ci ñun mooy ki ragal ki nga xame ne moo gën a ragal ci ñun buur subhaanahu mii boole góor ak jigéen ci jaamu yàlla boo demee alxuraan la koy wax muslimiina wa muslimaat muuminiina muuminaat xaanitiina xaanitaat ila axir ba ci zaakiriina zaakiraat moo tax boo déggee ku naan jigéen di tudd yàlla ci kaw awra la wala dafa xaraam kon yow alxuraan nga jam waxook ñun alquran nga teppi sanni yalla ne na goor tudde yalla na jigen tudde yalla soko wedde nak demal ci azab kon sang boobu fek fekk la penku bi mu ñewé saw dan nan dan wax nan ñetti weer ñetti fan ñetti at ñetti wer ñetti fan ñetti at di leb rek waye ba mu joté ku ne xamna mooy li imaam wax léegi di ñetti weeru gore bi mu egsee nag dog bu mu jaam yi la mu jàngale mooy góor ak jigéen àndandoo jaamu yàlla bi ñu sanu boroom ba amalee ci fitra ba ñu ñëw àdduna lépp loo xamee ne dafa yàlla ci doom aadama yàlla bind na ko bàyyi ko ak moom doom aadama di dox nag yàlla bàyyi ko responsabilité boppam moom laa doon waxtaan suma suma ustaas responsabilité bi ko yàlla jox mooy doomu aadama ne ci kaw suuf di dox di xam la yàlla ak lu yellul xam li baax ak li bon xam nu muy moytoo lu bon ak nu muy tënke boppam ci lu baax loolu yàlla dala ko bàyyil ittaquuni yaa ulil albaab yàlla daf ñu ko bàyyeel jox ñu cër bu ne ci sunu biir jëmm joo xamee ne yëgukaay la yëgukaayu xereñ ci xalaat ak xel ak yëg-yëgu doom aadama yëg-yëgu yaram bët bii xool ak nopp bii dégg ak xel mi tànq di xalaat di sottante ba xam la yàlla mu def ko wa nga jàngi xam-xam ba jëfandikoo ko moo xam ca liggéeyukaay ba la moo xam ca kër ga la ba xareñu xel moomu nga di ko teg ci foo xamee ne nit doomu aadama su ko xoolee daal di ne eskay loolu nag lay wax ne njàngale moomu nga xamee ne moom sang bii imam imaamilaahi mahdi alayhi salatu salaam limu ñu ñëk xamal ci biir njangalé moomu bi borom bi bayé ak suñu bop ñu dox ci aduna ba mëna xamé lamu la ñëk xamal mom sang bi alayhi salatu salaam moy bi ikhlasin mbollem suñu mbir ñu tek ci sel manam li ci suñu sunu ak sunu borom ci doxin ak waxin ak jëfin mbolé sen loola nak lay wax ne boo xoolee njàngaleem fa ngay xamee ne ki rëdd lii de la nga man mooy ëska yi ndax amul lenn looy seet ci njàngaleem looy tiim ba ne ko cam kon nit a ngi dox ci kaw àdduna ànd ak ay baaxam nit a ngi dox ci kaw àdduna xam la yàlla nit a ngi dox ci kaw àdduna xam li nga xamee ne moo sell ca moom wax naa la léegi ne la ñàkk colu gi amoon waaye bi nit xamee dafa war a sàngu moo sàng boppam dama dem tugal di jëflanteeg ñu leen di tudd nobles française la ma njëkk jàng ci ñoom mooy seen ak colin ñu ne ma bleu de nuit bi ñuy sol ngir bañ a ràññeeku ci biir nit ñi sol loo xamee ne fu waay tollu seen la ñu woyofal seen colin bu ñuy dox te amuñu soirée benn ceen gu ndaw ñoom jigéen yi moom lañuy takk ak jaaru yu ndaw te moo ne ñu nga ak ay jamaa ca biir waaye bu ñu amee seen soirée yu mag yant sa lañ koy sol waaw ngir mën a wanewu seen bopp waaye ci doxinu àdduna ni loolu lañuy bàyyi xel léegi nag da ngay xool ci ñooñ lislaam léeg-léeg nga ñëw ci aw xel gis ku solu col ga mooy tax nit ñi xool ko waaye xoolal sàgg bii ni mu tàmbalee xoolal ñu tedd ñi xoolal seen musóor seen muuraay yi xoolal col gu weex gi weexaay bi nasaraan dafa ne pureté la mm-hmm. waaye signe de respect la boo gisee nit bu ne mël ak lu weexam li ngay njëkk a gis mooy da nga nga xoolaat ko mm-hmm. la lay frappé ci moom mooy sell la teg jëmm jiy dox di ñëw mm-hmm. ak dal ga taarub weexaay bi kon sanga baangoog ci tuuti ci jàngale duñu jël kaddu gi di yaatal ndax bu ma ko toppee man na dugg fo xamé né day mujj doon gam té waxtu yu jotna xana di di wat di sant yalla dañu nak ak nak mbotay go xamé né sen taxaway Momar ma ngi la koy ma ngi len di ñaan ngeen di len bayyi xel muy wa vision 129 secrétaire général bi laa toogal jarbaat ci man membre ya ngi ni toog ci ndigalu nak sen kilifa ya leen jiital yabal ñu and ak man xarañu taxaway ak organisation defena bi covid bi amé sunu pap mam libas mam njiin mi yalla jox mu ñuy jiite jamalay kérok ba mu da fay julli dama xey rek xalé yi wo ma ma sang bi néna dafa bëgg julli seet leen nan ngeen koy organiser diggante geewé ak fajar jaar naa fa xool leen ñu ne jàmmalaay ñu nga toog ñoom gone yi bi ñu xëy si suba gi ba ma gis ay drapeau yu nu samp ma ne waaw drapeau yi pour lan la waaye bi di ñëwee ba sàppi ba julli ba nuuru max di jël seen jumtukaay yi filmer ko wan ko àdduna waa àdduna dañ ne waaw ñii ñooy ñan xanaa ñii ay extraterrestre lañu ñii fu ñu jógee te ba tey ñu ngi ciy waxtaan moo tax ma ne kon Nuurul max Mahdi dafa am jumtukaay gu rëy gu ko liggéeyal na ko bàyyi xel ñu leen di ñaanal yàlla di leen ñaax dolli leen ñaax nag xam ne diine ji moom maam waxoon na ko mag mu muus moy and ak xalé ya waaw ndax mu nga ci xalé ya kon tay yene ngi wone sen empreinte ñu ngi ñaan suñu borom yalla na nu yàlla dimbali ba yi wu reuy wi bima momat di wax naan man dañ koy def lu ndaw mané ko du ndaw de <laughs> du ndaw fu ay wayjur di dem ñu dem war leena defal taxaway bu ndaw taxaway bu ndaw du am lu mag fa am lu mag la nak rawati na kamil alquran kitab bi mo waral leer gi kon dara ndaw ci nañu nañu koy nañu koy taxaw nañ ci xalaat nañ ci xarañ di gërëm nak bala ma tej imam mata imam ratibu jumaay guy mariama layen ca dakar centre ville nangona sama wayjur ba tay mook sama bàyyi sidi chaw sidina abdullah wallaay taalibe yaa nga ndakaaru loolu dégg naa ko ba tàyyi ñii nag doon na jëmm joo xamee ne waye fam bu ñëwoon sax war a ba jumaa bu téyee xutbaam ba war kaa wax sañ na fa saasi jox beneen imaam ne ko kaay ñëw xutbaal ma dem toog ci sàpp si ndax oyo fam ak joxi cëram bu ñëwee ci mbooloo kenn du ko xàmmee kenn du ko ràññee xanaa nuyoom ngay dégg nga xam ne egsi na ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla na yàlla barkeel ko yàlla yàlla sàmm ko yàlla na ko yàlla taxawu di sant yàlla nag ci sunu jotaay bi di ñaan sunu borom yàlla na nu nangul mu néew mu bari te bu ñu yàlla nangulee ni ko imaam ñaane yàlla na nu yàlla dimbali ba lii nga xamee ne moo ko dugg moo dugg ci àdduna la ca nit def ak pexem ak seytaane ak ñamu àndal lañ ca def yàlla na nu yàlla téyel boppam ñun ba teqaleel ñu ci lu leer diggante seeni pexe ñoom ak jëfi sama borom te jëfam ji moom mi ko mën a tegg yàlla nañu ko teggil ba ñu doxaat suñu ittee bu boobaa nag la ca nit defoon nit ñi dina janoog ñoom teppil ko seen bopp ba mu set waaxu dem ci seen i seen i ittee bopp te yàlla dimbali ñu ba am am bi yàlla yokk ko xéewal gi yàlla yokk ko wér gi yàlla yokk ko ah ñiy faatu ah, jamono yi di ngay dégg ku naan faatu yi bari na waaye looloo soob yàlla de fu ngeen dégg ku faatu kenn faatu ko yàlla rekk ay faataate yàlla rek mooy faataate kon yàlla miy faataate ñu ngi koy ñaan jamono jii yàlla na ñu wàññil ñiy dem ndax ñun ñëpp fi mu tiit nañu ndax saa yooy tëddi daa nga naan ah, man de bu subaa du ma yeewu parce que xamuloo luy xew ndax da ngay gis kooy waxal léegi nga xëy ñu ne la dem na looloo tax kuy tëdd rek dinaa ah man de bu subaa du ma yeewu kon nag yàlla nañu yàlla dimbali mayaat ñu espérance de vie boobu ñuy xaar ci kattanam ak mbaaxam ak ndimbalam ci barke jéegooy sang bi alayhi salaatu wasalaam mi ñu fekkoon fii di fàttaliku la dale maam Michel Sène ma nga xamee ne yàlla dafa dogal Balla silu Sène sëtoo na ci moom de te xamuñu ko woon waaw Balla Silou Sène nag li tax ma tudd ko mooy tampon bi moo am téeméeri at ci aju màkk ji 2020 ci la tampon bi jóge woon vin Makka di dëggal yonent ak Seydina Isa Ruwulaahi Isa ibnu Maryam Isa Ruwulaahi ibnu imaam kulla imaami imaamil xaramayni kon moo tax ma jàll càllale googu di fàttaliku Joseph Ndiaye ak mbooleem ña saaba bu jigéen boobu jur yal na yàlla yeesal yërmande ak njéggal ci ñoom mbooleem ruu gu jóge fii ci île bi dem barzaq yal na la fa yërmande yàlla fekk mbooleem ku fi nekk nag la dale melentaan bi gën a tuuti ba jëmm ji gën a yéem bi gën a rëy ci taxawaay ci île bi fa nga ne yàlla na la fa ndimbalal yàlla fekk ak koo mën a doon yàlla na leen fa ndimbalal yàlla fekk waaye yàlla na wasaaroo ci àdduna bi yëpp واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد سخنا بولين جيري جيف تود نان لا لغي نيغي نيان يالا غاي جوتالو ني سوني كادو سي ابي نيوم اك نجابور ان شاء الله جيري جيف